أعوذ بالله من الشيطان الرجيم la xawla wala quwwata illa billahi alil azim man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha ñoo ngi leen di nuyu di leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen jox bismillah Cheikh Bara Niane ku ne tabaski ne tour deret mënul wax ni que bés la boo xam ne bañ nañ ko ba nañ ko tuddee mooy la fête du sacrifice mooy bés bi ñu war a tour deret suñu maam Ibrahima alayhi salaam doon jëfee ndigalul boromam suñu borom fayeku loolu mais ñenn ñi dem nañ ba yegg ci ni xarum tabaski ci boppam dafa am aspect xam nga lépp loo gis am na mystique. nit ki bu juddoo dañ koy rey la xar. nit ki bu dee dañ koy turoo deret nit ki bu dee am céet dañ koy turoo deret nit ki bu ngénte dañ koy turoo deret ak bu demee tabaski dañ koy turoo deret kon loolu lépp ay mbir la ndax deret doomu aadama bu taxawee dara du dox di même deret doomu aadama ci boppam bu taxawee dara du doxati nit bal nga ko japp faaw deretam taxaw mo tax nit ñi borom xam-xam yi bu ñu japp ni dañu bay bam nelaw ñu hada turam boole ak li ngay koy boole soog koo werdu ma japp nit ki fi mëno ko japp ta deretam taxawul mi hmm. non lu mel non la mo tax man la euh, mbirum xarum tabaski dafa dafa graw bom bi ko xam da nga am jabar ju dem wala xale bu dem bom bi boko jele xam nga am na ñoo xam dañ nan la boko takke ci lal bi du demati hmm. non non dafa am spécial jatt bo xamne non la da nga ko ci jàng fas ko comme exemple kun salal Muhammad wala ali Muhammad siri sigi saara sigi an fala xab naam neen ñu jab naa baaba maa bif mi jam naa gëm ñu diw bul génn kër gi fas kooku dootu génn di kër ga ci buum xarum waaw bu dee jigéen la dootu demati bu dee xale bu ndaw la dootu demati mhm. bu fekkente ne waxtaan bi la nga jël ko wala maa daxalu mi ne sa amra aboohum nga jàng ba ca aaya ba fa mu jeexee nga jàng ba jaxal naa mi bayn addim sadda mi xalif sadda faa sama xol laa suruna ko sa loxo nii jël waxtaan bi raaya ko sa tëstan bi bi mhm. ku la liggéey faatu dafa bari ay secret non la amé ci ay ci xaru tabaski bi non la amé ci bob bi béjjën bi ni béjjën bi boko amé bin khulu ya ilayya annahu istama nafra min jinn fa xaalu inna samina quran xajab yahdi ila rusfana bi wala nusir bi ma adwanu kan yaqul safa hal lay satatan yem foofu juróom-ñaaroon sox ko ci bi def ci kani ak tutu joxati ak këriñu àllarba tak ko sa kër dëmm rap jinn setan dara du fa dugg lépp ci xaru tabaski la yàlla bis bu nek yàlla wàccee na fa kemtan mais nit ñe ko xamul même bu dul tabaski sax bis yëpp am na ay kimtaan ndax yàlla moo ne du ma ñëw di leen soppi yéen a xool li war soppi ngeen soppi ko inna allaha laa yuxayyiru maa bi xawmin hatta yuxayyiru maa bi lan moo tax yàlla wax loolu bis bu nekk rek am na secret Sénégal ñu ci ëpp tabaski rek lañ ko ciblé mais bis bu nekk am na secret mais jëmmi tabaski moom dafa bari ay secret yu ci nekk fi ne ni jëmmi tabaski bu yor yor jotee bu naaj wi tàngee jëmmi tabaski bu naaj bi tàngee koo xam xamante fi ne ni naaj wi tàngee 11 dugub ak 11 kilo tantarma nga sarxe ko ñan sa aajo di nga fekk déwén waxtu naaj bu tàng boo julli jee ba ñëw saraxe loolu ci boppam boo saraxe loolu di nga fekk déwén ci kàttanu yàlla ndax mboolem loo gis ci àdduna rek yàlla mooy jox taxsis wallaahu yaxtasu bi rahmatihi man yasa wallaahu sul fadlil xasim yàlla moo ne may ngi xool lu ma soob ma def ko mais am na ñoo xam ne defal naa leen seenum xel sart bil àqli ndax yàlla bu wax alxuraan ne ñaam xel la ñuy waxale inna salik laa tulil albab li xaw mi yaqilun li xaw mi tasakkarun li xaw yuminuun ne ne borom xel yi lay waxal kon jëmmi tabaski moom li ci nekk dafa bari lool boo xam ne boo ko doon di ko tukkee dina xaw a jafe mais xar mi dafa jafe ba même ku tëlee fi ne ni tële ku tële boo amee sawum xarum tabaski xawum xaaf ku tële tuur ndox mi boo ko amee képp am lu mu koy boole ci ndoxum koko bind yaa xaw yu yaa matinu 66 toqal ko ci naan ko kooku du tëli ba nay tukki wala nga bind karatay ni boo julli jee ba ñëw nga toog sa soxna bind na la karatay ni wala nga wan ko ñu ko bind bind la karatay ni sa di ginnaaw kooku doo tëli mukk bari na jukki ci xarum tabaski lañ ko mooy defee ndax xarum tabaski am xaaf lay doon am xaaf xaaf baatu xaaf ñëw na ci alxuraan xaafal xuraan ko xarum tabaski nga tifli ko ci bopp bi la yokk lépp looy bëgg ci àdduna soo ko wax bismillah alhamdulilah rabbana taqabbal jàng loolu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 balaa moo dee rey ndax dërët yi xam moom la tuur bésu tabaski est alxuraan de amul fenn fu ñu bind loolu ci alxuraan. benn ñaare ba tamit amul benn hadis bu ko andi. te moom fii ba àddina bi tukki mun laa wax ne la benn ayib alxuraan moo ko andi wala benn hadis moo ko moo kon senegal soxlawul ay waxkat. ay borom xam-xam lañ soxla. te yi nag waxkat yi ñoo fi bari. Mm-hmm. da ngay gis koo xam day wax bu xoolan bàqara ba mën a jënd war naa si gisu ko fenn. amul benn hadis simit boo ko andi senegal te ustaas yi dañoo war di bàyyi di réelal nit ñi te loolu amul xanaa kon bis bi nga xamee ne koor jot na kenn du seq sa jabar koor xanaa kon léegi kon nit ci boppam nit ci boppam nit njaay bu fekkee dañ ko may soxna kon xanaa kon moom dafa am limite heure bu mu tëdd jabar ak heure bu mu tëdd jabaram la moo tax yàlla wax na kun may soxna amatul heure ci moom ndax dalaa leew doom hmm. la moo tax yàlla wax ne ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa maa faddala ba'dahum alaa ba'din jigéen lu mag mag góor a kilifaam mm-hmm. kon góor gi kilifaam nag am na droit def ko ni woneex ba ci dem ci mbedd ma sax seeg sa soxna sax loolu araamul mm-hmm. waaye dañ ci suturaal yàlla mi nga xamee dafa teral jigéen kon nañ di def sanru néeg kaskare mm-hmm. di suturaal yàlla bañ ne wax nañ sax ne kuy tëdd ak sa soxna da nga fay làmp bul taal làmp bi loolu dañ ci suturaal yàlla loolu sutural la ndax yàlla képp ku suturaal nit la mais bisu tabaski ak subal tabaski ku def nangam sa doom dee def du dëgg amul fenn